ci 63 ensuite 64. Senghor moobu doon comprendre woon na ni le pouvoir mi ngi génn ci loxoom. Senghor comprendre woon ni le pouvoir déjà mi ngi génn ci loxoom parce que y avait une demande de de jeunes sénégalais à l'époque yu commencé di wane seen bopp ba gars yi génn fii ay fetal wax naa ko fii bés tiire ci kaw ay population ci la sengoor commencé woon di préparer son départ en moo tax bi muy bi muy départ ba dem di seeti xalif généraux yi soo daan gis bari lu Senghor luy wax même vidéo yi la ci net bi ba léegi ni man nga ko seeti. Mm. Senghor daf leen doon wax ne man de dama bokk ci génération boo xam ne ñun suñu wàll dem na te boobu Senghor 74 ans la ma ah. mm. suñu wàll dem na donc du woon mag trop. Mm. mais gis naa koo xam ne war na mën a yor réew. te wóolu naa ko gis naa ci moom ay qualité yoo xam ne mën na yor Sénégal xam nga ki mu kan la. Abdou Diouf Abdou Diouf la woon 45 ans. Abdou Diouf est devenu président de la République du Sénégal à 45 ans. premier ministre 35 ans. bi ko bi ko Senghor di def premier ministre. naan naan gis naa ci moom gouverneur à 25 ans. naan gis naa ci moom ay qualités yu war a tax muy war a jiite Sénégal. boobu Senghor amul 40 ans de Abdou Diouf amul 40 ans. loolu moo tax euh, parcours El Malick bi mu euh, di kii définir euh, relativement ak ak Issa intéressé ma parce que très souvent bi tey li ngay dégg ñuy wax mooy dañ naan yi. Pastef fii xale yi ànd ak Ousmane Sonko ba dans l'imaginaire des des des gens dañ naan xëy na ñoraguñu pour mën a yore réewum Sénégal bi tey Senghor bi muy nekk président Sénégal il avait cinquante six ans relativement xale la euh, Mamadou Dia bi muy nekk premier ministre président du conseil lénéro à l'époque il avait cinquante ans xale la mais mieux que ça wax naa la Abdou Diouf à 45 ans la nekk président de la République du Sénégal 35 ans premier ministre 35 ans premier ministre regarde mbedd bi ñaata gone ñoo fi yor nekk 35 ans mënuñu am sax jabar a été ans. Mm-hmm. wal joojo Ndiaye sa mbokk Saalum Saalum. Mm-hmm. bi muy nekk ministre de l' intérieur il avait 39 ans. 39 ans. Mm-hmm. donc ça diir dire quoi ndaw ñii ne dans la classe politique même ñu ne ci réseaux sociaux yooyu di bind ñu naan ay xale lañ dañu nangam ak nangam mais c' est pas parce que bu ñu xoolee euh, culture euh, ni ñu ko waxee histoire politique gu Sénégal ci seen âge suñu age man ak yow. Mm-hmm. la ñoom du Diouf ak ñoom Senghor ak ñoom Valdiodio Dia ak yor yoroon réewum Sénégal. Mm-hmm. te boobu la Sénégal di jóg génn ci loxoy tubaab yi ñoom ñu yore ko. Mm-hmm. j'imagine que boobu la gënoon compliqué moo tax ce discours là qui consiste à dire tey am na ku ma dégg sax mu ne mon petit frère ou mon neveu Ousmane Sonko. pour <laughs> un peu pour te montrer que ni xale la affaire mais c'est pas vrai ay xale amuñu fi ay mag jëm yu yor njaboot. Macron en France. Macron en, Macron France. en France. <laughs> il est devenu président à moins de 40 ans. 1977. Eh, mais oui. oui donc moo tax parcours bi El Malick Diawat intéressant c'est-à-dire man li ma bëgg a wax foofu rek moo di ne ndawi Sénégal il faut que ñu xam ne réew mi seen réew amul âge pour di xaar naan euh, su ma àggee âge sàngam dinaa def nangam non âge bi nga toll ci ngay bokke ci liy doxal réew mi. Hmm. parce que sinon da nga toll ci âge bi Bidey war ne yaakaar war ngaa mën a décider fekk décider jàll na bu yàgg yi saax saaxaay nañ réew mi jaay ko ba taxaw. beneen bi mooy maam bi dafa ko doon wax lu bari duma ci d'accord ak moom dafa doon euh, à chaque fois bu ñu waxtaan daf naan ma euh, tu penses que Sénégal république lañ république lañ ba dégg quoi ma ne ko mais nous sommes une république mais république bu koy wax Aliou dafa am lu ci am solo mooy l'état de droit état de droit am lu ci am solo mooy ki koy garantir mooy justice justice boobu am lu ci am solo mooy magistrat yi ñu dénk nga xam ne bu leen neexee tey ñu xañ ku leen neex ci ñun liberté gis nga ñooñu bu ñu jouer rôle bi ñu war a jouer dëgg-dëgg ci réew dañuy am état de droit dañuy am république mais comment expliquer te maam biir wax na ko sànq lii délinquant ci réew mi yëpp comment expliquer que ñenn ñi nekk kaso comment qu'est-ce qu'il explique comment expliquer ñu leen ñu leen takkal ay bracelet maam bi de cité na fi benn cas léegi mën nga cee cité yeneen nag yeneen ak yeneen nag yeneen donc loolu bu amee bu amee ci réew man dama naan euh, mosuma ci d'accord ak maam bi mais de plus en plus dama koy fekki parce que la république mooy li nga xam ne El Hadj El Hadj mii du ñëw toog ne man sama maam buur la woon maa leen di jiite par wala man ma ñëw toog ne sama maam buur la woon maa leen jiite par force. république mooy nga sant Bitèye ma sant Diop kii sant Sow kee sant Fall ñun ñëpp ñu yem ci Sénégal donc dañuy dem élection képp ñu la booteel nga jiite. yoonu kenn nekkul foo juddoo foo yaroo sa maam buur laa ak sa maam jaam la yoon kenn newu ci loolu mooy république mais bu ñu demee ba réew mi nekk ñaari camp am ñoo xam ne mën nañoo sañ def lu leen neex ñeneen ñi bu ñu defee li gën a tuuti euh, euh, dem kaso fekk leen ci wala takk bracelet la fekk leen ci ça veut dire ni mënoon nañu indiwaat Lat Joor rek mu taxaw. parce que Lat Joor ak euh, buur yi fi nekkoon nan lan doon demee ku nekk garmi baa nga nekk xaw ma lan ak lan bokk ci fi nu juddoo ñoom tu peux faire ce su fekkee nag bokkoo ci ligne boobu amoo benn droit moo tax musaa Ngom defe naa noonu la war waykat gambien bi mm-hmm. ne dañ daan tëdd ba guddi buur fëgg ndëndëm ne ku fi fanaan tey di jaam di jaam mm-hmm. lan ci lan moo ko doon expliqué ku fanaan ci dëkk bi di jaam mm-hmm. gars yi daw génn ñëwaat nekk ay garmi ñi fa fanaan ñu jàpp leen def ay ñoo ñoo gën a ñeme ñi fanaan ñoo gën a ñeme lan moo ko daan expliqué parce que ay buur lañ suñ demee nag ba réew mi dañ naan ku bokkul fii soo fi waxee fanaani kaso mais lan moo ko wutaleeg buur nee na ku fanaan ci dëkk bi tey di jàmm. benn la ah. droit bu mën ci biir république. un mauvais droit. Mm-hmm. waaye li nit ñi ñoo koy liggéey ci biir république ba di ko yaxanal ba euh, yaxanal ba di ko defar bu muy gën di baax au fur et à mesure du temps. man loolu laa wax dama ne. droit mais 60 ba léegi ñuy defar droit. pareegul mais mais oui mais parce que. est ce que mais c' la. est ce que dinañ pare mais moo tax mu doon la cité. Mhm. Euh, euh, euh, Senghor. Mhm. xam nga Senghor 63 ba ba ba 80 17 ans la toog di waajal di bàyyi nguur. ñoom ñoo bugg ñun suñ su ñun la ñun ñoo am un problème personnel entre ñun ak nguur parce que ñun ñoo parce que parce que gis nga Moussa. Mhm. droit bi ngay wax ni. mais mais il faut il faut bien. <laughs> waaw waaw dama ko bëgg xam lu tax parce que il faut il faut il faut bien. non il faut qu'on avance. aussi à appliquer. Mhm. le droit même s'il est mauvais. l'essentiel c'est qu'il nous serve d'expérience pour que dans un avenir plus ou moins proche au fur et à mesure du temps ñu mun ko defar. ba tënku ci véritable démocratie. à l'image des des des pays occidentaux. d'accord d'accord foofu d'accord alors Isa. oui li ñu bëggoon dug ak moom sax mooy euh, comme ni ñu wax nii. parce que moom mu ngi nii ñu takkal euh, bracelet électronique sànq ba léegi euh, ñu ngi koy gis. Mm-hmm. Euh, Waly Diouf Bodian ñu takkal ko ko. Mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye sànq nii ci ngoon ñu teg ko yoxo mm-hmm. ak ñeneen ñoo xam ne jamono ji yeneen ko doon compté.